nel lu mën a lu war a jël temps la wala mën nañu ko tënk ci ni nga xam ne nii def nañ enquête préliminaire yi ci war yëpp ba ñu yeggatee ci ci pàndaw gi est-ce que mën nañoo njort ni lu war a mën a gaaw la am déet. waaw li ñu wax procès criminel mooy atte jéeye yi gën a mag procès criminel nag du gaaw ndax li tax du gaaw moo di dafa bari fu muy jaar ci fi muy jaar day tàmbalee ci enquête. bu enquête bi jeexee ñu jébbal dossier bi procureur de la république bu procureur jotee dossier bi da koy jébbal juge d'instruction ndax ci jee yi ñuy wax yi gën a mag euh, ci niñ koy jàngalee en matière criminelle disons euh, l'instruction est obligatoire maanaam foog ñu jaar ci kilifa gu ñuy wax juge d'instruction juge d'instruction nag sax boo ko déggee moo di mbir mi daf koy war a segg su ko seggee ñaar moo mën a am benn mu jàpp ni ki ñuy tuumaal liñ koy tuumaal am na ci ay firnde su loolu amee day def li ñuy wax ordonnance de renvoi maanaam man juge d'instruction jàpp naa ni diw mi ñu tuumaal am naa ay firnde yu jar mu yóbbu ko tribunal loolu la ñuy wax ordonnance de renvoi hmm. devant la chambre criminelle su fekkee ni nag amul ay firnde yu jar yóbbu waa ji tribunal day def li ñuy wax ordonnance de non su fekkoon ni téye nañ waa ji téye néegandiku daf ko daf ko war bàyyi mu ñibbi këram noonu la mbir mii demee léegi nag su fekkee ni yóbbu nañ ko tribunal fi ñuy wax chambre criminelle ba tey maanaam ëttu attekaay boobu day saytu mbir mi hmm. euh, su saytoo mbir mi ñaar moo mën a am su fekkee ni tuuma yi diis na dañuy daan ki nga xam ni moom la ñu euh, tuumaal ni moo def jéyee ji mm-hmm. su fekkee ne nag tuuma yi amuñu ci ay firnde yu wér dañuy def li ñu wax acquittement mm-hmm. noonu la mbir miy demee ñu jàpp ni yi nga njëkk a junj yëpp yu ñu romb la